mel cëb xol ma faatoo bëccëg moo gën a sedd jaali bëtu damay dégg ñu ne fukki benn bisir moo koy waaw loolu moom euh, xëy na des na ma des na des naa ci am lu ma leer waaye waaye lam ne wa an yaxfir li jaamihi maxfiratan tajaluhu kaman lam yasnib xattu ñuy jàng arab dañoo xattu baat bu dëgër la nit nag bu amul bàkkaar bu ñaanee suñ borom man na ko mën na wuy wuy ay ñaanam mën na ko àggale fu mu bëgg kon maa ngi jéggulu bu dee lu jëm ci wàllu euh, risque kon bu wakkaana xaqan ak yeneen yi du yooyu euh, teñ bàyyi xel ci ne tamit jël gën xasida di ko jàng ngir aajooy sàngam duy teggin suñ digg Sëriñ Tuubaa jàppal ne ni suñ borom wàccee alxuraan digal jullit bu ne mu njëlbeenoo ko di ko jàng mu doon lu ci moom nañ gëm ni képp ku aju ci Sëriñ Tuuba yow farata ci yow lu mu néew néew war ngay jàng xasida Sëriñ Tuuba ndax alxuraan moo fi taxawe suñ borom waaye xasida yi Sëriñ Tuuba yi ñooy Sëriñ Tuuba wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sang bi sant nañ bu baax li mun ci wan a ñàkk euh, xasida gi nga wax nii di wakkaana xaqan man dama cee am sax sëñ àlla bi ab seetlu ndax xasida gi boo xoolee sëriñ bi baamu na ci baat boobu ñetti yoon wakkaana xaqan alay naa nasrul muminin bind euh, def na ci biir itam fastajaaba def na ci biir itam falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan maa kaanu yaamaluun ñetti aaya yëpp ñu ci biir wakaana xaqan boo xoolee sëñ bi da ko cee ràbb tàmbaleel aaya bi booy way wane nga jël baat ba ca njëkk rek dajale ko tàmbaleel wakaana tàmbalee ca waaw ga بابا تير بي جيخ غدا جالي ويوي دانا لا جوخ دانا لا جوخ اي ما يوخ دانا لا جوخ وكان حقا علينا نصر المؤمنين نيت يون دانا جوخ فاستجاب لهم ربهم نيغي تاملو سي فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم بذلك اكرمت الابرار بنعيم وكبت الفلاح ليه دانا لا جوخ ايتام فلا تعلم نص ما اخفي لهم من قرات اي جزاء ما كان يعمل لول لب نيغي سي بير وكان حقا نانا كوم نونو كو مبوك واخي كون داي ملني سيرن توبا دال موي كو خاني موم weesu ko mën xam ba jeexal ko xam na la way kat boo waxoon ni mbirum Serigne Touba xajul ci ay keuyit sa sañees na ci wax way kan du ko euh ki dafa laaj mu ni ñan ñoo doon Serigne Touba ñan ñoo doon ñan ñoo doon Serigne Touba ñan ñoo doon Serigne Touba. Serigne Touba ne ñi nga xamé ñoko doon moy ñi nga xamé sax nañ ci liggéeyam. alquran ak addis yonent bi ndax moo bi xidmatil kitaabi wala xadisi yasbudu laa bi sahabin mawrusi mais ci liggéeyal alquran ak addis yonent bi mais ci lañ koy donde moom sëñ Tuuba jërëjëf euh, kii mu ne dafa déggoon ñu wax ni Sëriñ Tuubaa amoon na ay jamono mu xaaj mu di ci ñeenti xaaj muy laaj ñeenti xaaj yooyu yan la waaw loolu wax nañ ne Seydina Jibril moo ko mos a wax ne ko suñu borom noonu nga woo ñi aju ci yow te xamal ne ñun ñeenti xaaj lañ ñi aju ci moom di jaamu yàlla di ko liggéeyal ak ñi aju ci moom di jaamu yàlla te duñ ko liggéeyal ak ñi aju ci moom di ko liggéeyal te duñ jaamu yàlla ak ñi aju ci moom te liggéeyaluñ ko jaamu yàlla ñun ñeenti xaaj yooyu bi ci njëkk moom la ñu wax mari saadix mooy ñi nga xam ne ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa ba noppi yàlla ñu digle ñu ci def seen kenn kàttan ñu ko bàyyi loolu mooy xaaj bu njëkk bi. ak ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal te jaamu yàlla ñun nee na ñooñu doon ne dañuy jaamu yàlla te duñ ko liggéeyal ñooñu ci aw fan wala bu leen nekk ñu dul jaamu yàlla duñ ko liggéeyal ñoom ñoom sequt ak ñoom dara sëriñ maam Thierno Mbacke nee na dafa dégg léegi nga wax wax léegi moom da cee doylu nee na daal dafa bëggoon nga dellu si waat si mooy bi nga nettalee léegi ni borom Daaru Muxti naar bi jàng ba mel ni ku xaw a aalu lool nee daal foofu bu sañoon nga dolli waatal ko fi moom doylu fi dafa eh, borom daaru moom ñun demee woon ak sëriñ mag yi daanaka neexut a wax ndax dañoo taqoo woon taqoo koo xam ne jéggi woon na ndaw daanaka léppam maa noonu ko wax ne bi nga xamee ne sëñ ko bataaxal boobu ñu isaata ko xam ne bii kitaab yi fa karañul kitaaba bil mataabi waaw gis nga ñu ngi ci sortu ñu ci sortu waaw ah, Ibrahima ba ak mataabi wax nañ ne loolu da ci am taalibe yoo xam ne loolu dana jaaxal xadub di jooju mujj sëñ bi jublu ndax loolu da wax ne téere bi ma la bind te mooy sama su ñëwee ci yow ko teral tuub wala da ko bëgg a ne ko yow mi nga xam ne yaay sama përëg bu téere bi ñëwee ci yow bi ñu ko laajee sëñ bi wax na ne moom xadub yi përëgam moom maam Cerno la ci jublu loxo nag mënta teqaliku jëm kon moom benn lenn la ci sëñ bi bokk na ñi nga xam daal bu moom lenn lañ ci sëñ lenn lañ ci sëñ bi moom maam léppam ci ci ci ñi ñi ñi nga xamee ne loxo bu jógoon ci jëmm daanaka jëmm ji day manqué waaw noonu la demee ci mbirum sëñ bi noonu la demee ci bi itam daanaka bu ñu ko topp ah. waaw laaj bi ñu laajoon sànq xam nga bii am na lu kii xam nga ki laajoon ne daa bëgg nga wax ko as si loo xam ne sëñ Tuubaa wax na ko borom daaru waaw boobu la doon lësën bi doon waaw mu ne daa am nag loo ci loolu la waaw waaw loolu moom xam nga dafa am ma ko mën a ganalee nga def ko daan ne ana Ahmad Mouhamad Fall ni ko iqra na nga ko baaxoon rek mu tàmbal di jàng di jàng ba ci yàgg maam Cerno soppi ko sëñ bi ne ko Cerno ana looy def ni mu ne ko ah mbir mi ko daa mel neexu baatu kii nettali ak déggu arabu ki muy nettali ay waxam moo la tax a def ni nga def daanaka dikkal ma wax la fi loo xam ne moo gën a yéeme naa na ko fa fa fa ko doon waxee ne ku ñu fa yóbbu mu fa jógee la wax waaye du wax leneen moom dafa sanaa yi hinda xanaa yi jëloon sinaa yi laam ay ba mu ci coono ba doon tag yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf mbokk mi nee na dégg na sa waxtaan rafetlu na ko mi ngi lay ñaanal suñu borom guddal saw fan te wéral sa yaram nee na moom daal daa am lu ko jaaxal ci boppam mu bëggoon nga dimbali ko ci ndax nee na moom jikko yii daa nekk ci moom mu bëggoon nga dimbali ko ci xasida ko yi koy man a dindi nee na jikko yi mooy réy ngi ci moom ngis sala ngi ci moom ak bari mooy ngi ci moom mu bëggoon nag nga wax ko koy jàng daal jumbul yooyu dana mën a denc loolu de mel ni kon na ko léegi ndax xasida bi ñu ko wax ne moom sama xure ko falaatan sa nga xam ne xëy xasida boo day demal ay yëpp xam nañ naa ayib yi nekk ci nit buñ ko dee lim danañ jege téeméer wala ayib yooyu ayib yi rek lañ wax mu nga xam ne lim lim lépp ci biir ayib yi lay dugg xam mel ne kon yooyu xasida yooyu ñu wax yëpp day day dindi ayib yi ak bàkkaar xam ayib yi lañuy wax ak bàkkaar bàkkaar yaram moo koy def ayib ci xol lay nekk saa suñ dandoo ñoom ñaar nag soo dee xoyo bi neen daal di ñëw jërëjëf kon kooku na dégg xasida boobu sa nuqri'uka fala tansa bu fekkee amagu ko na ko daal di wecc ko rek te fas yéene bu baax mbokk mi dee laaj mu ni ndax Sëñ Tuubaa bokk na ci ñi teewoon xarab Badar waaw ah, suñ moom ci saaxir nii moom teewu xarab Badar ci saaxir waaw ah, ndax xam ne fekk na moom ci wax nañu ci xam na ci ci waaw ci ci la gane àdduna muy junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar ci la gane àdduna loolu fekk na xare Badar jaam lu yàgg yàgg kon mbokk moomu na ko déggee noonu donte xaj na dafa gis ci biir xasida yi lu xaw a euh, noonu rek mel ni comme shahidani llahu bi anni waxidun min ahli badrin ma naxaani jaahidun waaye loolu moom waxi mu sëriñ bi la mu ne mi ngi rafetlu waxtaan bu baax بلاد قصيدة يا ربي بالمصطفى المختار من مدري أي جغلا أثانا إلهي بالمناجهة بسم الله